ginnaaw bu ma sante yàlla subhaanahu wa taala ci sàng bu tedd bi na Muhammad sallallahu alayhi wa maa ngi leen di gërëm yéen ñi fi teew yépp ndax senegal moo fi toog tey ku gis jotaay bi xam ne réew mi moo fi toog kilifa diine yi yónnee nañu walla ñu ngi toog kilifa lislaam kilifa jàngu bi l'église église catholique l'église église protestante autorité coutumière patronat syndicats, partis politiques, société civile bànqaas bu nekk ci réew mi tey toog na fi ak ke ko fi toogal ak askan institution de la république réew mi nag moo toll képp ku waxul jàmm wala doxoo ci liy tax Sénégal jéggi situation bi ñu nekk yaa ngi liggéey ci luy suuxal Sénégal te ku ne war na xam li waral coow li Sénégal élection bu ñu dàq kenn newul élection du am doomu Sénégal yaa ngi waxtaan seen biir loolu dafa warul jar ñu ñuy ŋawti ŋawte ci àdduna bi lu ne jàppal bàyyil Sénégal jàppal bàyyil mel nu àdduna buy tukki président de la république nee na duma candidat wutatuma mandat le 2 avril ma jeexal sama liggéey damay dem sama yoon waaw ah, loolu loolu war na tax coow am ci réew mi loolu war na tax coow am ci réew mi date bi président est koy parce que décret mooy fixer date des élections yomboon na ma ma toog ne date bi nangam la te su boobaa neex ku dem parce que li am waaye dama ne du date te ak réew suis candidat ci cette diversité amna candidat yu ñu a amna candidat yu ñu téye amna ay parti politique amna candidat yu ñu éliminé amna d'accord ñu d'accordul ci li xew d'accord kon kay li ñu war moy tok waxtan suñu biir jital réew mi intérêt réew président bu nekkul candidat newul damay Beaucoup de sax fekkee élection fekkee deug la wax mënuñ ko foog ñu xool nuñ koy doxalee dañu dem ci élection fal ki ñu war a fal ci anam yu leer yoo xam ne Sénégal day continuer jëm kanam loolu mooy li ñu fi indi loolu nag kuñ ci woo nga ne yow ñëwuloo mais loolu sa mbiru bopp la bu leen foog mu ne man ngeen ko def defuñu ko président de ku ne duma ñëw waxtaan ci sa bopp nga ko def président def na li mu war a def ku ko bëgg loolu lay def mooy waxtaan ak dialogue ku ko bëggul loolu lay def mooy waxtaan ak dialogue suñu dialogue ba pare nag jotaay bi li muy rëy rëy amul dogal bi loolu tam dañ ko war a xam waaye dinañ ne président suñu gis-gis jàpp nañ ne lii mooy li gën ñeneen ne ñun lii la jàpp ne mooy li gën su ko defee nag moom mu xool su taataane ba pare nag jël dogal bi muy jël su ko defee ñëpp jubluwaat ci liggéey dem ci élection yi ci jàmm ak salaam loolu mooy lii jig Sénégal loolu mooy li jàmmu Sénégal te wax naa ko waxaat ko junj naa ko junj nag doy na boroom xel nañu dox jàmm bëggal réew mi jàmm loolu mooy njëriñu réew mi mooy njëriñu ëllëgu Sénégal kon yaakaar naa ne fii jàmm rek moo fi war a mën a génn ak waxtaan bu fekkee tey pare nañu ëllëg am ngeen journée lëmm su laajee sax ñu yokk ko ngeen yokk ko ñëpp rek wax ñu déglu ñëpp déglu seeni argument su paree ñu tataan jël synthèse yi jébbal ko président la république mu doog a mën a jël décret bi fixe dat bi ne bés nangam la li ci des nag la ñuy def après le deux man dinaa saisir conseil constitutionnel xamal ko sama xalaat wax ko it mu wax ci loolu ndax si njëlbeen gi ñoom ñooy mujje kàddu googu waaye assises yi am nañ ci te réew mi moo ci kaw constitution moo nekk ci kaw élection moo nekk ci kaw lépp ndax d'abord jàmmam moo tax ñun ñëpp ñu nekk fi askan kon lii moo doon kaddu ubbi gi ma bëggoon ubbi di ak